d'indice très rapidement. ñi nekk ci parteem ñëpp ñuy wax ni mënul def da leen dàq benn ñaareel bi moom ak ki ko bindal texte bi ñoom ñaar ñëpp la waxoon dafa mel ne dañu commencé indi beneen wax président de la république moom dafa taxawoon bi Roch Marc Kaboré di ñëw fii ancien président burkinabé mu ne fii ay waxi troisième mandat yooyu mënutu fi am. ñi koy wax loolu ñi koy wax sax ay intellectuels yu bëgg ay interprétation la et cetera le garde des taxawoon na fii ne ñiy wax ne troisième candidature mun na am ñooñu dafa mel ni sax mënuñoo lire tey jii gis nga la président de la République dem na États-Unis def New York ni du point de vue du droit ça ne pose plus dem na France def interview avec l'hebdomadaire oui français mais le, la question juridique na se pose plus mais am na lu mu wax peut-être nee na c'est un problème politique nee na moom jëlagul décision loolu la wax. d'accord kon ñu xaar mais mais man lu ma jàpp mooy le président Macky Sall warul déglu ñi nga xamante ne dañu koy dugal ci loo xamante ni nii guute la il doit sortir par la grande porte. d'accord mooy maanaam def deux mandats yi nga xamante ne moom la wax ba pare bind ko ci livre am moom mooy second et dernier mandat bu mu doon sollicité en 2019. est-ce que dans ce cas parce que yow aussi da ngay analyser actualité politique bi est-ce que donc tout ce débat là jar na ko pour yow. jar na ko kay ou bien le débat s'impose. jar na ko man ñëwoon naa fii ci Maymuna fii xaw na yàgg ma koy wax ma ni leen mandat bi dañ ci war a wax ñi wax waruñu cee wax parce que le président de la République suñu relation ak moom mandat la. d'accord au-delà de son mandat il redevient un citoyen ordinaire beneen bi si lu ñuul daw. président de la République daf ñoo toogoon fii ñu naan ñu xaar leen dina wàññi mandaam dina wàññi mandaam ñu jékki-jékki mu ni mënatu ko te commencé na ko def benn bis toog président de la République toog na fii nii ne man du ma nommé sama rakk par décret et cetera mu def ko alors yooyu yëpp bu ñu ko jëlee mais sénégalais dañuy fagaru nag toog aussi di xool ib xippi seen bët man en tout cas li ma wax mooy tout sénégalais man c'est pas une question même de de justice mais c'est une question de citoyenneté d'accord